Mhm. Euh, parce que lii ñu ma jox nii. Mhm. ki benn lijaasa bu ñu ma jox la boo xam ne. PPI mhm. ah, GPPI la. ñoom ñoo ma ko jox. de euh, dinañ ko jël dinañ ko jël euh, waaw. la association hein? attestation de reconnaissance. Cette attestation est attribuée à son excellence Pape Jean Fay, ambassadeur pour la paix pacificateur. waa léegi ci ambassadeur pour la paix pacificateur boobu moom mooy dajalewaat nit ñi. ba pare def jàmm ci ñoom léegi yow en tant que artiste man Thiès dama gis ni moom mooy moom mooy carrefour des carrefour des artistes carrefour d'art oui mais gisuma fi art art bu dee théâtre jël nañ ko yóbbu ko à Dakar bu dee fecc wala artiste musicien yu kii dañuy dem à Dakar bu dee artiste plasticien yi da ngay jég-jég ñoom lu ñu yor Dakar lañ koy yóbbu waaw tey yow ngay artiste plasticien waaw parce que Thiès duñ jàppale seen seen mbër dañuy suul ndaanaan dañuy suul waaw man nag damaa bañ. dangaa bañ waaw man je regrette damaa bañ moo tax tukkiwuma soo gisee tukkiwuma demuma Europe mais man Europe laay dund loolu la laa expliqué. Europe ngay dund. man j'expose aux États-Unis mais man dama ne su ma demoon Europe du ma réussir nii. yow da nga exposé aux États-Unis États-Unis fa laay la expliqué lu leer laa expliqué sama tableau yi may defar États-Unis laa ko exposé damay exposé France di exposé fépp ci àddina. Mhm. lu leer laa la expliqué. Mhm. dem ma fen mais sumay may bagage fa. kon donc ñun <clears throat> waa waa waa waa tugal ñoo la gën bàyyi xel que ñun waa Thiès mais carrément ah mais lu la parce que nit da ngay gëm sa bopp li ñuy wax ne li ñuy wax ne li booy di jëlee gaal gi di dem di rey seen bopp quoi mm-hmm. man fekkuma ci man sama passeport su ma génn woon nii am na visa mm-hmm. comprendre ma risque mm-hmm. mais man dafa am benn moment boo xam ne euh, dama toog ba mu yàgg man tamit ma ne euh, te ne di ko gën a indi mooy suma suma papa ak suma galerie Thiès booy wër Thiès ba Thiès daj man rek ma yor galerie. Thiès ba Thiès daj. galerie laa la wax galerie daj. mais gis naa ñoom ñëpp. ñii di am na seen les frères la am nañ galerie daal. loolu lan la.

et tout dañuy ñëw di ma seet si parce que li ñu soxla dama koy denc. parce que ban da dégg naa for ci wéyu bay ñu ne. Euh, keroog ba euh, jara bi ay da jara bi ba muy def exposition moom fële au Grand Théâtre euh, ñu ko soutenir ak ñu ngi doon liggéey ak moom ci nga bokk. si la bokk waaw si dama ko soutenir parce que bu mu ñëwee ma ne Jean Faye dama war def Grand Théâtre dara. Mhm. mais dama ci taxaw. parce que Thiessoise la. Thiessoise la Thiessoise la mais dans la mer quoi. oui oui moo tax ma toog Thiès parce que. bugguma dem Mbour bugguma dem Joal bugguma dem fenn Thiès moomu ñor si lay toog comme naan mës di nuyu li nga wax nii. Mbaye Dosé loolu wax dafa ne man dama nekk artiste théâtre ba pare war a téye drapeau bi a Thiès. bu ñëpp demee à Dakar dem feneen ma dama war a des. mais gil sama réew. Mhm. parce que ville culturelle la ñu mhm. yow nga ne noonu ngay def aussi tamit. te di def exposition. Mhm. Euh, fële ci États-Unis France ak euh, whatever fépp nga koy dem mais mais ñan ngay liggéeyal en tant que artiste fii. au moment où ci artiste peintre plasticien ñan ngay liggéeyal ak lan moo tax liggéeyoo ñeneen ñi ma la tudd si maa ngi liggéey ñi ngi liggéey ak ñun ñëpp xamante nañ bu baax parce que ñu ngi liggéey ak am nañ association des waaw eh, mais mais duñu leen dégg lu bari non Dios moo nekkoon président bi Dios moo nekkoon président bi pendant quel combien d'années oh, pendant dix neuf ans dix neuf ans mais ci règlement bi ñaata ñaata at lañ wax nga war a def par intérim lañu ko ko joxoon moo kenn na mooyu ko kenn na mooyu ko dañ ko ko par intérim parce que ki fi nekkoon kase il était bien kase su dara amee. waaw su manifestation amee. ñu amee ay ay ay workshop. waaw am ay gan yu jóge Europe. waaw kase day ñëpp. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. au temps quoi au temps au ñëpp mu ne am nañ lii am nañ bu ñu amee lu ñu def ay 4 avril ñu def mu ci nekk loo ci war a am am ko kase moo def loolu. Mm-hmm. mais depuis Jos nekk président adapte su ñu amee ay gan yu war a ñëw pour ñu def workshop dafay tànn ay quelques nit yu dem dem foofu man du ma yëg. yow doo yëg du ma musuma ko yëg lu waral loolu dafa am xaw a ñagas seen côté non c'est parce que affaire bu ñu la nommé président da nga war a un président mhm. suñu doon ko nommé ci rassembleur nga war a doon quoi da nga nekk rassembleur mhm. affaire mhm. la war a doon yëfi ñëpp la war a nekk comprendre li ma expliqué waaw mais li may ñafe moo tax moo tax ma a rassembler artistes yi ma baale moom moom ma baale mën a doole mais kooku yaakaar na waa Thiès yaakaar artistes yi bari

artiste yi gën wàll artistes yëpp parce que en général en général soo dee seet fu mu nekk nii su amee lu muy def sax ñu nga ña gis peut être ay élèves la ñuy doon ñoo xam ne sax dañuy sax bokk ñu woon ci ci affaire bi. mais man man man man ñoo bokk koñ mais damay gis de de très renommées personnes yoo xam te ne dañ fay ñëw ñu kii yoo xam te ne des artistes peintres ak des élèves aussi tamit xam nga élèves yu bëgg peintre aussi tamit da leen di woo. mais mais y a des personnes yoo xam te dañ fay ñëw. man loolu dama koy def man sama kër dañ fay ñëw. sama atelier mais yi yiy jàng dañuy lan moo waral euh, tiraillement boobu am ba yéen mënatu leen a ànd lan moo waral loolu. lu ñëpp ce que waxtaan am na fa. waxtaan mais boo leen di waxtaan doo leen woo média yi ñu xam man yéen nag lu ma père Jean euh, wala Jean Faye artiste peintre yeen yeguñu len de yeen Thiès yeguñu ñu sax yeen yeen ak yeen ak a ngi dañuy defe ne sax da ngeen voyager où sont les artistes boobu. en tant que en tant que artiste bu renommé où où êtes-vous yeen fo len nek non mais pourquoi pas ngeen di def seen i bagages télé yi di ko gis. tey amoon nañu radio mais nawet bi moo tax quoi muy moo tax tey def ñu réunion bi dañuy am ay ay réunion ñu ngi préparé biennale des arts bi. les pieds dans les arbres léegi dangay da ngay parce que fi nga nekk sa yaram tàng na dama bëgg ñu dugg xool benn clip bu aare soog a ñëwaat euh, nga réchauffé tuuti ko nga nga nga parce que fi mu ne nii ñoom dañoo war a dugg tamit dañoo war a dugg bu régie bu baaxee rek ñu ñu ñu ñu ñu dugg def appel am na nga tijji ma ligne bi man ku ñëw nag dugalal. dama bëgg artistes yi ñu wan ma ni ñoom ñoo ngi biir Thiès quoi parce que ñoom dafa mel ne ñoom Thiès dafa leen a soxalul quoi man looloo ma jaaxal man loolu may métti trop trop trop trop en tant que artiste il y plus de cent vingt corps métiers d'art mais même même musée bi doo gis doo gis ñu fay dugg même euh, village artisanal da nga koy romb ni sax bi ko doo ko bàyyi xel fee nag euh, fële centre culturel bu ñu jël dem yóbbu ko mbadaxul nag man boobu moom moom su ma sañoon sax moom ñu jël ko déplacé ko jël ko def ko fi ci wet bu clip baaxee rek xolal ma clip bu aare nga dugalal mako ko euh, euh, régie euh, bu mu nee nekk vraiment man dal man amna luma jaxal trop trop trop trop trop ya ya, ya, ya, quelqu'un qui est là muy muy muy mbay dosé gis nga lim fi liggéey lepp lepp lepp lepp ñun ah artiste la mais mais mais mais mais ties ties mom def na fi jalooreem léegi il a fallu que moom mu dikkaat wax nit ñi carrément moom kan à travers notre télévision ah dama bëgg ñu dugalal ma clip régie bu baax. Eh bien, ngi noonu ñoo ngi ci suñu émission toujours ah agriculture bi nga xamante ni moom mooy fësal nit ki ci talent bi ko yàlla may euh, à travers euh, sa main à travers ses pieds à travers sa bouche hein, à travers ses imaginations hein, yàlla nag may na ku nekk talent yàlla may na ku nekk talent yaay xam noo koy utiliser. moom mu doon nit koo xamante nit ku doy waar un artiste peintre décorateur ah, artiste l'homme aux douze métiers laa koy waxee un cinéaste ah, kiy liggéey euh, théâtre beeg euh, film yëpp lii ma téye nii euh, du tee aussi tamit dinañ ñëwaat ci joos <laughs> lii ab photo la nataal la gis nga kii mooy photo bi moom moo ci nekk Kanda Bongoma Kanda Bongoma ak Youssou Ndour ak Njawar Seck Njawar Seck Njawar Seck c' est le frère à Johnny mm, Seka. waaw Johnny Seka moom moom mooy joué le message moom moo doon nekk Bilal bi doon yëg ci kaw kaaba gi du noonu. ndeysaan kooku mooy Johnny Seka. Johnny Seka. waaw moo fi indi Michael Jackson en 1974 indi fi James Brown en 1975. xoolal loolu moom daa doon àndal may liggéey njawar. kooku su bëggee liggéey fu ko neex lay liggéey moom. amul frontière. non amul frontière. tubaab bi dañ ko respecté. non njawar non demul Europe muy Sénégal su bëggee télé bu ñëwoon télé bi bëgg fi liggéey day liggéey par force parce que am na xam-xam. te loolu lañ xalaat waaye ci làmb ji ci ci ji la mu jëw nekk ak ñoom Bécaye Mbaye di di di di jox njawat Seck njawat Seck parce que doomu Alaaji Kayre Seck culture rek la doomu Alaaji Kayre Seck Kayre menn mi menn macha allah moom mooy moom moo jur njawat moo jur Johnny mais es ce que gars yi yow xam nañ la yow xam nañ yow yow man xam naa ñoom El Hadj Mansour xam naa ñoom ay yow El Hadj Badara Mbaye Kaba man man moom laa Doudou Ndiaye Coumba Rose. Doudou Ndiaye Coumba Rose maam la may wax maam Jean la may wax. maam Jean la waaye maam maamam laa. Doudou Ndiaye Coumba Rose ñoo bokk turando ñoo bokk tur parce que Jean Fay la tudd mais tudd cinq fay cinq ci ci ci ci lébu ñooy wax cinq olof mooy wax cinq mais Jean Fay la tudd. Jean Fay waaye Mbaye Gueye Fay la may wax. ah léegi olof yi léegi ñu wax <laughs> sang fay. ñu wala ko naan vie sang san. sang fay mooy Jean Faye. <laughs> léegi père Jean lan moo waraloon photo bi. fii wax ma ci bi bii tourné woon si fii bii c'était en Gambie. en Gambie y le président Diawara. Diawara. 1992 doon. avant avant Yaya Jammeh. avant Yaya Jammeh. Euh, Yaya Jammeh. Mm-hmm. non euh, Daouda Kairaba Diawara moo invité woon Youssou Ndour Gambie ñu Bakau hôtel Bakau hôtel Bakau y ya- avait ya- ya ñoom tous les musiciens mhm. boobu boobu suuf estrade estrade bi nekkoon suuf estrade waaw waaw ñoom gis nga booba temps pour jege ay Youssou Ndour yombul Youssou Ndour su ma ko bëggee gis kooku yàlla moo ma ko indi nii mhm. waaw waay jox naa ko cadeau defal naa ko ay teranga ba tàyyi boo xam ne Sidi Diakhaté moo ko indi ak Sidi Jaxate Sidi Jaxate ba mhm. ku baax Touba ak ku ku war ku ñu war a jàppale tamit ci. Sidi Diakhaté waaw ci jàppale yi muy jàppale xale yi. Mhm, waaw ñooñu ay ndaanaan lañ. ay ndaanaan xam nga ni su nekkee ay ndaanaan da koy nangul doo ko bañ dama bëgg nga indi ko fii ci télé mu nekk suñu sponsor leader ci wàllu làmb. kan Sidi xam nga làmb mooy suñu culture. aussi waaw mais loolu du ko bañ. du ko bañ mais Sidi soo ko oowee du ko bañ. du ko bañ non non ko bañ. à travers Pape Mbaye aussi tamit émission bu mag bi mu def démb ma Pape dinaa ñëw ci yow léegi après incha allah nañ déggoo. Mhm. parce que dama xaw a jàpp tuuti rek dinaa ñëw Mm-hmm. yow ñu continuer parce que yow dafa am ay photo yu doy waar yoo xamante ni man damaa yéemu. Mm-hmm. lii nga wax nii Kada mm-hmm. Bongo maam mii. du ko ndaw. déedéet. Euh, Youssou Ndour mii. du ko ndaw. keneen ki ci rek Jawar. Jawar Seck du ko ndaw. déedéet. léegi sa link ak ñoom lan la woon. liggéey. job job rek. job à travers ton art. waaw non man ku ma bëgg a liggéey du ma ñëw du ma du ma du ma du ma ñëw li wax bëgg liggéey dama ñëw bokk. day ñëw bokk. ñëw bokk. li nga moom ngay jël si. li ma moom laay jël si par force. par force man kenn du ma jël di ma wax noo tudd ma ne Jean Faye yi bind sama tur day dama damay ñëw bokk ñu ñu ñu jox ma xaalis ma def sama yoon. ah bon ah, waaw man noonu noonu laay liggéey. loolu loolu lan la. loolu eh, intelligence artistique la. intelligence parce que soo ñëw da ngay indi lu lu lu lu ñu mën a gis da ngay ñëw bokk da ngay indi loo xam ne amu fa. mais comment s'était déroulé cette journée là. Euh, cette journée là boobu dama defaroon ay mbaxane yoo xam ne Youssou Ndour laa ci defaroon. daa def boobu maa ngi bëgg a yóbbu ñoom Bass Ndiaye ak ñoom Dango Diop. mooy temps bu. bu Abdou Ndiaye créé de kii euh, euh, groupe boobu. Mm-hmm. Bas Ndiaye Ndongo Diop ñoom Thiat. Mm-hmm. ak ñoom Amzat. Mm-hmm. ah ñooñu nga xam ne dañu yor tolloo ay dix tama. mais dama ah, ne daan nañ joué fii festi festival fii. waaye non ñooñu toj nañ dëkk bi daal wax ne dem ay ay ay ay Fimela. non non dugg ci àll bi. <laughs> nooyal ba mu nooy. nooy ba mu nooy. yaa ngi dégg. Hmm. daal di retourné ñëw ñëw ñëw ci biir town bi. Ah. yaa ngi dégg la hmm. man spectacle bu mës a am Thiès yi man dañuy oo man lumière yi ay Khalil Gueye Khalil hmm. Khalil le grand Khalil bu doon def en musique. sama carte mu ngi fii sama carte télévision mu ngi sama biir saak. macha sama carte supporter des des des des lions du Sénégal sama carte mu ngi sama biir sama biir sac sama carte man du ma fay stade. doo fay stade ñoom El Hadj Diouf saag yi ñu daan saag yi ñu daan yor di def seen portable. waaw ma ne Baye Ali Kébé moo ko jëlee Thiès yóbbu ko France. dafa mel ne mooy bii nga yore woon sa euh, sa kii bi. waaw sama galerie mooy galerie bi ma yore woon fii de jardin public bi. jardin galerie bi fii waaw foofu la ambassadeur Japon ñëwoon. je pense am nañ appel nañ jël appel bi. oui euh, boo tijjee rek nga wax ak moom salaamaaleykum. salaamaaleykum. ñu may ma son ci appel bi.

Mm-hmm. ñu wàcc kër Moussa Ngom fanaan fa ba bët set. Mm-hmm. ma ma tiire ay t-shirt. Mm-hmm. tiire ay mbaxane. def ci Youssou ci foofu. waaw Gàmbi laa ko tiire. tiire Gàmbi. laa tiire mbaxane lépp fan ko xalaatee. yëpp fa laa tiire ko. bi ma ñëwee ku dagg biir rek may la benn mbaxane. ku tagg billet mu may la benn baxane jaayi ma ko de. ku mm-hmm. tagg billet mu may la baxane ba Youssou Ndour mais mais kii marketing quoi du marketing kii di distribuer baxane kan la. Mm-hmm. ñoom ñoom Assane Thiam xam naa ne ak ñoom Issa Sissoko le grand mm-hmm. grand Issa la. Ah. yaa ngi dégg lu may expliqué. fa lañ photo ak Youssou Ndour suuf seen. boobu gars yi ñu kaw. bi may dem. Youssou Ndour mi ngi naan jabar mi ngi naa ma Jean Faye ma ne ma ne dem Sénégal. waaw ma ne ko ah ma ne nga ñëw la mm-hmm. ma dem kër Moussa Ngom fanaan fa. waaw moo ma yee. Mm-hmm. ma ne Jean Faye mu ne ma ne ñu fekk ko hôtel hôtel ko Youssou lu ma ma ko du ma dem dem. loolooy fulla. waaw loolu mooy fulla. waaw mais mënoon ngaa dem rek. bay non non man xajuma ci ñooñu man li may am maa ko ñaxal sama bopp lula man galerie man ma fi yoré galerie bu taxaw. Mhm. Sénégal bo dé wër artiste peintre yi fi nek mhm. dem ci kaw bu souf la la expliquer mhm. ci kaw bu souf amul ben artiste bu def comme man ci Sénégal ba Sénégal dé yoré galerie galerie la la bo waxuma ay ay yi bind ay galerie lii dé galerie d'art bu mak galerie d'art bu mak man maa koy gérer ci Sénégal bu mu daj man rek maa ko gérer. ci Sénégal way motax tax mënumaa dem fenn. mais lolu lolu lolu lolu lolu lan la lolu genre. yoré ay archives. Ah. ay archives la yow fu mu ne nii da nga tijji benn brèche loolu mooy gars yi ku ñeme na ñëw loolu nga def nii. waaw waaw c'est parce que Thiès moo tax bëgguma génn Thiès dama bëgg a jàppale waa Thiès ba pare gars yi xamul lan dama bëgg a xale comme léegi xale yaa ngi jël gaal yi amuñu métier. Mhm. mais dañ leen war a former. Mhm. dañ leen war a former man damay boole ay link ay ñëw jo art kuy def théâtre ñi fiy def ñi fi def ay défilé de mode am na défilé de yoo xam ne ci ñu lañ ko gisee. bu mhm. def défilé de mode. yor ay matt yenn ko di dox ci biir kii bi mais gars yi mosuñu ko ñemee waa Thiès Joar moo ñëw indi ñeme yaa ngi dégg ma génn xëy yeeg laas yaa ngi dégg parce que film bi ñu fiy tourné man may ñëw ñëw taxaw non dama ne yow tamit maay taxaw maay gérer. ok léegi ah léegi léegi sa ñu jóge foofu. ñu ñëw fii nga xamante ni moom moo nekkoon fii. sa galerie bi ñëpp nekk galerie bi mooy galerie bi moo nekkoon fële moo nekkoon galerie bi moo nekk nii. fii à Mbourou fii ci kaw tali bi ci station Shell bi. waaw waaw moo nekk waaw xam nga kii du feeñ bu baax def naa fa presque ay ay sept ans. sept ans ba 2010 laa fa dem. ba 2010 waaw waaw commencé defar fekk fa ay faxmaan ma génne faxmaan yi xuloo maa ñëw xeexu maa ñëw. Mm-hmm. ñoom dañ maa gis ne grand gens yaa fa nekk ma ne man maa fi nekk. Mm-hmm. ñu ne ma loo bëgg la la ñuy def. Mm-hmm. ñëpp génn dem seen yoon. ma defar ko ba mu baax. Aliou Sow defar étude de projet sama étude de projet moom la waa ji taxawoo de Kawsara boobu mooy restaurant boobu. sama ah, étude de projet sa étude de projet sama étude de projet moom la exploité noonu maam Cheikh. lu leer laa la expliqué man télé laa nekk du ma fen

dafa ñëw pour bëgg fa samp benn euh, jet d'eau. waaw ma ne ko jet d'eau bi nañ ko def ci digg bi. waaw ne jet bi daf du ko def ci digg bi ci côté bi la koy def. Hmm. ma ne ko non nañ ko def ci digg bi comme jardin public la nañ ko def ci digg bi. ñu waa mairie ni ko soo bëggee def jet d'eau foofu da ngay dem Jean Faye dafa la benn këyit comme associé. Hmm. yaa ngi dégg comme jardin bi mën nañ ko jox. waaw ma def ma def. Jean boobu boobu maire bi kii moo fi ne woon Aliou Sow. non Aliou Sow nekku fi woon. kan moo fi nekk boobu la dame moo fi nekkoon muy fàttali mu tudd quoi benn sama benn jigéen moo fi nekkoon. mais maire yi fi ne woon tamit moom à part ñi fi njëkkoon nekk tamit ñooñu ñooñu nga xam te ne dañoo dem ba marqué fi seen ay Ousmane Ousmane kii euh, euh, nu koy Ousmane Ngom genre yooyu ak ñenn ñooñu mais ñeneen ñi ci def ñëpp. ba ñu ci jógee ci Rissa Seck ñi ci ñi ci topp ñëpp. ñooñu mais ah, ñooñu ay ndaanaan lañu. mais ah. ñooñu faale wuñu dërëm ak ñaar dërëm ak Pa Ousmane ko ak ñoom ma Ousmane Pa Ousmane xam naa ko dama daan dugg ci auto naka la daan diggé sama xarit papa la woon. naka la daan liggéey que moom ñoo ñoo soxla wuñu woon xaalis soxla ju alal mais ñi fi mujjé ñëw ñoo ñëw soxla alal Sénégal bu yàqoo ba boy dugg ci gal yi mais ñoom ñoo tax mais ay milliards mëno ko dégg parce que investir ko ci nit yi. mo tax so so soo bëggee nangu ñu ne bul def lool loolu da koy def porte de voix. oui lan moy sa xalaat ci lool ak lan ngay yedd ñi nga xamanteni ni ñoom ñoo wara tax xalé yi tok

foog liggéey ba mais cinq ans bi lay def ba pare après ñu ñu def élection ñu jóg ñu doog ko. ñu xool résultat bi bi. mais naka la lay nommé ba pare ñëw indi la ba pare bu commencé la xeex. ça c'est pas normal. je suis nag naka la war a liggéey ak nit ñi. nan la war a liggéey nit ñi nañ ko bàyyi mu liggéey. mais dama bëgg non dañ koy bàyyi moom. naka la war a liggéey ko mu liggéey. non non ku ci ne yaa ngi taxaw ngay wax looy wax soo nekkee président pour duñ la bàyyi nga liggéey sa liggéey mm-hmm. waaye man loolu laa gëm

comprendre ce ku ñu war a auditer ñu auditer la loo yor dañ koy récupérer par dugg ci population pour ñu mën a liggéey. Mm-hmm. man sama wax loolu. Mm-hmm. comprendre amul kii amul ka mm-hmm. yaa ngi ma la expliqué bu baax a man man soxla wu ñu embauché ma fenn. man maa yor suma affaire bopp man ba ma juddoo ba léegi sama bopp laa xam. te sama ñax moom lay dundee. lu leer laa la expliqué. man lu ma am aar moo ko may. aar moo la man xëccoo ma kenn aar fii parce que du ma seen moro. xaju ma ci ñoom. comprendre li ma expliqué. loolu mais li ma la wax dafa clair. affaire bi xam la.

pour ba yegg ci yéen. loolu laa bëgg nga tracer. léegi tant que tant que tant que toppoo ñu suñu culture. Mhm. mooy defar réew. mooy defar suñu culture mooy defar suñu réew. loolu am na. bu ñu bayul. Mhm. du ñu am lu ñu dundee. Mhm. mbay mi nañ ko jàpp. produit local. produit local. waa. gars yi nekk mais produit local ceeb est-ce que ñun moom ñu ceeb. Euh, ceeb ñoo ko moom kay. ceeb duñ ko bay ba. non ceeb tubaab bee ko fi indi. déedéet non doucement parce que yàlla dafa defar suuf si di di taw. Ah. di indi ndox. soo ko jiyee nga am. kan moo mais bi xam nga ñun luñ xamoon. tu dugub ak ceeb yëpp da dund. dund dund amul tubaab moo ko amul lii xam te ñoo ko suñu bopp. ñoo ko suñu bopp dañuy li ñu suñu bopp mooy suñu bayee ceeb ñoo ko suñu bopp suñu bayee dugub ñoo ko suñu bopp suñu bayee gerte ñoo ko suñu bopp man loolu laa gëm. waaw léegi ci produit local. ok bàyyi loolu vestimentaire côté culture vestimentaire. culture mais culture mooy jox réew. waaw mais ñun li ñuy ci suñu moom mooy tax ñu am développement. Mhm. ba bala ngaa commandé ay ay ay tableau di ko dugal ci biir ci mairie yi wala yooyu mais ne ko artistes yi nekk ci réew mi defar. defar ba pare ba defar ba pare. ak yi ñu war a mais soo nekkee ministre dem di commandé ay fauteuil Italie. Mhm. góomu yooyu. ñu menuisier yi nekk fii lañ koy jox ñu ñu defar ko. Mhm. yaa ngi dégg li ma les kii. bois beeg waaye dama ne. am na fi Casamance nga ne bois moo fi nekk. mais bois Casamance. du ma ci bëgg wax mais tamit. amoon na benn problème bu ci newoon. entre Casamance ak Sénégal si am na problème. te loolu boobu bu ñu ko defaree dafay c'est c'est mais dafa dugg fu mu warut a dugg. parce que chinois yi ñoo koy jël di ko transfert di ko dugal Gambie di ko yóbbu Chine. mais kan moo leen jox doole boobu aussi comme ni gars yi di bëggee contrôler réew mi noonu la ñuy contrôler ñëpp. loolu laa la expliqué affaire mais est que ñi ciy liggéey ñoo ngi gis seen bopp. aussi tamit ñi ñi ciy liggéey. mais menuisier yi su leen bàyyee dañuy liggéey

fana def naa STS mais yàgguma fa. c'est local c'est local. non local la ñuy war a kii dem ngaay jàpp waa ngaay defar dàll yi. comprendre nga ce qui. mais mais yow yaay ambassadeur kullu artiste tey. ambassadeur de tous les artistes laal esprit. waaw mais kuy liggéey ci ci ci xalaat di liggéey ci loxo. Hmm. ya barki démb maa ngi dégg à la télé euh, ñuy wax ne ne tenue yi war a ñëw dañ ko war war a jox. dañ ko war a jox suñu tailleur yi ñëw ko moo loolu mooy dëgg. waaw tailleur yi tam joxoon nañ leen ci Covid gi tam yoral leen xaalis de. non ah, effectivement mais dañu génne xaalis non parce que bee ak bii bokk warut a bokk. non parce que dama ne pour man dama ne mun ay Sénégal ay milliards ngay dégg te doo gis. lu jar laaj. lu jar a laaj la. Mm-hmm. yaa ngi dégg si mënu milliards du lu ndaw

le Covid là amoon na fi problème boo xamante ni mooy li ñu waroon jox artistes yi. waaw euh, peintre yeeg artistes plasticiens yooyu yëpp artistes yi parce que dañoo gisoon ni gisuñu seen bopp. mais jox nañ leen ko am nañu ñu jox. man jox jox ma xaalis. y avait un mouvement. jox nañ ma xaalis mais ni ñu ko defee moo baaxul. am na artistes yoo xam ne jël nañu ay deux fois ñuy jël ay trois fois moo doonul yoon. affaire bi dañ ko waroon jàmbar xool Covid bi xaalis bi fu mu dugg dañ ko waroon xool am na artistes yi jël ay ñaari yoon ay ñetti yoon pour la ci benn nit man benn yoon rek lañ ma jox ci laa yem. c' est mouvement mais je mouvement Russie la. non Russie go gaw ma ko parce que doo da da xaaral Aliou hmm. que Russie moom Baba Amady dafa jàppale boppam pour mën a fël. mais est-ce que toog ngeen waxtaan moo la projet kenn Baba Amady. mais am du ma moromam mais ku dajale plus de deux millions huit cent naxaate. si naxaate la kay xam nañ fi mais naka ngay mën a jël ay appareil ba pare jënd oto ba pare yow yaa ci def ak yeneen gars loolu yoon c'est pas normal. wala ngaa jënd dala da nga koy laaj. gars yi yéen a ngi ci agriculture. oui euh, mun ngeen a woote ci 78. 710. Euh, oui 47 36. Ah, am na ñu bëri ñoo xam ne seen xaalis jotuñu ko mais ba am da ko mais ki la jox xaalisam ni la joxoon ma ko yow nga jël nga daal di ko dagg ne dama ciy jënd ay appareil ay ay caméra jënd ci oto jënd ci lii ba bala ngaa def lool da ngaa war laaj nit ki ba pare mu d'accord et ku ci ne mënoon laa dagg sa 10 000 francs

sa carte sama carte. de est-ce que est-ce que woo nga ki nga joxoon sa xaalis. laaj si woo naa ko dama am lu mu fa mu fàtte. mais y' avait xam nga foofu mouvement reçu bi dafa am lu ko taxoon jóg. mooy lan mooy artistes yi ñu fexe. Mhm. ba ñoom ñu am taxawaay ba bu ñu feebaree ñu leen ketal. waaw benn. Mhm. ñaar mooy ko ñu tijjil leen des comptes. Mhm. bu ñu leen tijjilee ay comptes. ñoom seen i euh, droit d'auteur yeeg yooyu noonu ak seen i sites yi nga xam te ne ñoo ko moomul seen bopp ñu fay jaaralee seen xaalis à travers Euh, la banque UBA yi mhm. parce que banque boobu panafricaine la mhm. beneen bi moo nekkoon mooy carte mayante xaalis bi mooy lan mhm. am na genre son yi ngay dégg mooy son yi boo dee woo nit am na son yi ngay jot avant euh, nit ki nga koy jot yaa ngi dégg dalal ton merci beaucoup ba dalal ton yooyu yooyu la nit ki di am ñu koy dagg trois cent trois cent deux cent deux cent yooyu la ñuy dagg dugal ko sa compte yaa ngi dégg léegi moom loolu la bëggoon taxawal ba pare <coughs> tëjil artistes yi des IPM, Instituts de prévoyance médicale et des euh, cas de retraite. Mm-hmm. yooyu noonu ñu kiiwal leen organiser ko ba pare mu am benn genre suuf soo xamante ni moom lay daggal artistes yi pour ñoom. Mm-hmm. xam nga euh, li ñu ne artistes yi bu fekkee dañoo nekk deux millions ou trois millions de personnes. Euh, nga ñëw joxe 5000 francs 5000 ça fera des milliards mhm. ñu def ko ay terrains boo dikkee 25 000 genre 000. Nous ñu tabax des logements yoo xamanteni ni mhm. ñun ñëpp koy bokk mhm. plus de 3000 pers 3 millions de personnes 50000 50000 ça fait combien de milliards ça fait 150 milliards ou 1500 milliards Le banque boo liggéeyal day ànd ak yow loolu nekk objectif mais est ce que nit ñi bàyyi nañ ko mu ah selon lui non man pour man pour man Euh, bi gars yi dugalee seen xaalis dañu waroon a ubbi benn benn dañu war a dem banque association bi mais mais seen si turu association bi la ñu waroon tijjee xaalis bi banque mais ci lañ ko tuddee. ci lañ ko tujjee. ci lañ ko tujjee. je pense bien ci lañ ko tujjee. non mais après dama dégg la waxoon quoi. non euh, après interview. Tu compte boobu am di la ko tujjee moom. est ce que est ce que tu comptes là parce que aussi tamit li ñuy wax nii faaw mu doon lu leer parce que. yi ngay wax nii xam lu tax lu tax mu doon lu leer. parce que mën na koo dégg. dik porte ci plainte wala dara. mais il faut que moom est ce que tu comptes am la ko ou est ce que aussi tamit tu contribuer parce que eh ben- moi je pense contribuer le quotidien. Eh, mais légui. mais légui. mais xaalis yi ñuy laaj nit yi. waaw ku ne francs. mais man sama 5000 francs ana ana sama carte mais kooku ki nga ko jox kan la woon. Aïda Diarra bi laa ko jox. est-ce que doo Aïda Diarra bi. non je l'ai appelé plusieurs fois ñëw na suma woo naa ko ba tàyyi wax ak moom quoi am ma ma ci dara lu leer. donc bu nekk noonu mënut nekk da war a delloo si seen. effectivement loolu moo war a nekk mooy ma ne bokkutuma. mais ba tey yaa ngi ci biir bokk. waaw sama xaalis mu nga fu kay maa ngi ci ci biir. léegi yiñ ci mus a def yëpp. lan nga ci mus a am dara da eh. amul carte la ou bien. Eh, non soo amul carte la fooy wuti. dañ naan amoo carte moo tax rajo parce que amoon na deux fonds force Covid ñuy joxoon benn bi trois milliards et quelques beneen bi euh, deux milliards et quelques. boobu ci benn. non mais en tant que artiste jotoon nga ko yow. jotoon nga sama non kooku xaalis Covid bi la woon pour jàppale artistes ci. jot jot naa li kon donc yow bu fekkoon ne da bokk ci fii dañu dañ ne ku bokk ci fii duñ bu dee bokk reçu tamit duñ jox. non am na ñuy bokk am na ñuy bokk reçu bokk feneen jot ay ñaari yoon ñetti yoon laa ni am na ñu ci gis. loolu lu ñu jaral leeral la parce que dinaa leen woo invité leen fii aussi tamit léegi leneen li mooy que ni ñoo ngi may wax ni temps bi ci des bariwul mm-hmm. mais dama bëggoon rek wax ma projet yi à l' la. Euh, projet yi à euh, l' avenir daan la Sénégal dafa jaxasoo fu ñu toll nii manque d' dafa am. Mm. emploi pour former xalé yi xalé yi dañ lay wara former mhm. parce que man dama gis ci dëkk bi ni xalé yi bu ñu màggee mhm. amuñu formation mhm. ñu dina dina metti waaw man nak lima taxa jog a jóg ma nekk Thiès mooy ay former ay nit ay ay ay xalé amuñu bëgg def aar mais so amul espace ma awma espace fu mu ne suma kër laa nekk dañ ma waroon damay lancer un appel boo xam ne dañ ma wutal espace boo xam ne bu fekkee man nga ñu wan quelques œuvre d'aaram yu mu def rek nga wan ñu ko nii ci ci ecran bi ah je pense Bira mën nga koo xool mu wan ñu quelques œuvres ñu xam nit ki mooy kan ah mu continuer milliard waaw pour jàppale artistes yi. un milliard. un milliard. mais loolu xanaa jubuloon kaw. mais gars yi naan ne ko ay café <laughs> di ko di ko noosé di takk ay karawaat solo yi daal. kenn artiste man j'ai rien compris. j'ai rien compris. léegi am na pneu bi am bi aussi tamit. man bi ñu ñëwee suma galerie. di ma ñëw seet. Mhm. te ñoom ñoo doon bëgg a wax man nu ma nan laay waxee tubaab yi man. man leen man du yéen yéen may wax nan laay waxee ñoom. Mhm. comme daal ni ma la expliqué. loolu am waaw waaw carrément. waaw nit soo koy jàppale ko jàppale te yàlla. loolu daal jëndee nañ ko ay café. waaye non ko naan ay café yéen ku leen jàppale moom xam naa ni. Ah, waaye non tubaab bi dañoo mujj gerte dañoo dem seen. gerte mais yéen tax lu def non dañoo suul artistes yi. parce que boo ñëwee lu ñu bëgg sax nga xam nu mu demee laa la xoolal ma wan ma beneen aussi tamit am na benn bu rafet benn pneu bu ñu def xaw ma genre lan xaw ma yooyu noonu euh, ma ñi bu dee baax na mu di ma wër ñëw sama galerie ñu ne maa ngi ah. mais fa la ñëw jënd fa a pneus. quatre pneus yii jaay naa ci ba taay. yaa nga dernier la ah. ma dernier bi dugalal ma dernier bi rek. waaw kii wan ma ko. ah vraiment ma ñu ngi def lu am solo foofu xam nga. kon nag ñu ngi ci biir forêt bi mooy dem foofu parce que mënoo dëkk ci dëkk bu pare yow sax xam nga Casamance dama koy gis ñi da koy def mais pourtant heure bi war naa fekk yow nga war a mën dem Casamance def fa benn nga am xaalis am sa oto dafa ne am sa oto dawal ko ay xale yu tubaab ñooy am see oto ma dëkk fii africain gëmul boppam leen lay jox fukki junni nga lekk ko joo jox ñi ci des pour lan ba pare foo jaar ma lay pour la non non lekk sama xaalis ma lay tàcc. yéen moom jox xaalis jox nañ leen un milliard ngeen naan ko non gars yow dégg naa am na benn. waay euh, non kii bu nga am fële aussi tamit. am na ay tubaab yu fay ñëw aussi. waaw non tubaab jaay dama fa doon defar benn boîte de nuit rek bu ñuy wax black and white. black waaw waaw sama benn boy moo moom. man da nga soxla rek damay defar ay hôtel defar ay restaurant yu de classe. yooyu yëpp day projet la. non c' est pas des projets dañ may woo ma dem liggéey ñëwaat di liggéey waa Wave ak waa Orange damay dem ay Dakar di. liggéey di ñëwaat mais yow a gis nu muy def yow. na ku bëgg a gis sama numéro téléphone ci moo dama ci woo. wala mu gis la wala wala woowee contact Ali Diabaté. waaw yow yaa ngi sama numéro yaa ngi sama école mais Jean Faye kenn ko laaj liggéey ak moom ma soxla ma liggéey ak yow. artiste ma soxla ma liggéey ak yow. man ñëpp ay liggéey ci foofu laa lay waxee rek. waaw nga nga nga nga daaneel. parce que bi première kii la. deuxième partie day amaat. waaw waaw boobu day amaat te boobaa damay toog invité ay nit nga toog. Ah. léegi dama bëggoon rek ñu daaneel fa. nga nuyu ñëpp macha allah. parce que neex na parce que man moom. waaw waaw waaw doomu géwél lañ bu ñu toppee yi rek. Ali maa ngi nuyu waa Thiès yëpp di nuyu di nuyu ñëpp. di mm-hmm. nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yeeg ñëpp. ak mm-hmm. jàngu beeg tout. Hmm. bàyyiwuma kenn. Hmm. parce que fu ma àgg fii su ma fa àggee waa Thiès ñoo tax parce que ñoo ma jàppale bu ma àgg si. loolu eh, que Thiès laa laa juddoo. Hmm. mais tamit dama dama ne. waa Thiès dañ bàyyi xel. ci ci man. dañ ma utal place bu baax boo xam ne dinaa fa mën a former ay xale man man pour man pour man. waaw parce que am na xam-xam yoo xam ne. suñu koy jox musée bi aussi tamit bi amul benn njëriñ. dañ koy jox dañ koy jox boo ñu former xale yi man dama bëgg a former yenn yi amul dara wala nga man man musée boobu mooy fàtte sax man war na yàlla ak euh, kii bi nekk fële ne. Euh, centre culturel bi man fi ñu ñoom yóbbu ko Mbadakhoune fële nga xamante ne kenn kiiwu ko. mais boo demee ay Côte ay Mali ay yooyu quoi mais seen marché ak seen milieu de de tourisme yi ak yooyu so sorewuñu. sorewuñu da ngay génne dugg fii. parce que boo boo tasee affaire tas nga affaire. Hmm. moom moom li ma ma ne euh, théâtre bi nekkoon mais. Hmm. mais kenn waru ko yàq. non ko woon kii waru ko woon ko woon dañ ko waroon a gën a defar. Hmm. comme naa leen expliqué. moom mooy comme poste poste bi fu mu nekkoon ba ñu toj ko ba pare def ko woon laal mais poste bi kenn waru ko toj. Mhm. comme naa leen expliqué bu baax baax. mais dañ ko toj ma ne mais ñi lu ñu toj xam nga mais parce que boobu temps Abdoulaye Wade ñëw na ni nit ñi kontaan nañu ba jéem xool ñu toj daal mais c'était pas. la pour tous les sénégalais ah oui man ah man dama fi nekkal pour ñëpp ah te nekkal mu sama bopp man dong ah man lu ma mën a war nar am pour man dong yalla bu mu ko am mm-hmm. mais lu ma am ma bëgg ko nii yàlla am chaque jour mm-hmm. man non non non lay doxé quoi inshallah man loolu sama philosophie mais sama art bi nar a bari tamit man gisuma la duma ma la sax mm-hmm. waaw damay waaye non kontaan naa vraiment kontaan naa ah kontaan naa ci ñëw bi nga ñëw. ah di di rafetlu ñëw bi aussi tamit. Ah. Euh, waaye la nga tàggu famille bi rek. oui maa nuyu waa R100 fa laa nekk di nuyu sama monsieur le maire hmm. Ousmane Diagne. di ko nuyu waaw Ousmane Diagne maa koy ziar Ousmane Diagne di nuyu waa Thiès di nuyu ñëpp. Hmm. Ah, eh, fàttewuma eh, lim da jub ak eh, ñoom Baye Serigne Sams. Mm-hmm. ndeysaan sama boy boobu. Mm-hmm. yal na ko yàlla lafal cet. amiin yaa rabbi waaw nga xam ne moom. sama waay la nag daanaan noonu daanaan la non job non. Baye Serigne macha allah ay guerrier non ay masaar yee masaar bu laan. ak Lam Lam sama ménagère. Lam vraiment agent immobilier. oui Lam Lam Lam sama waay Lam mm-hmm. moom bu laal de bul jege. parce que moom boo laalee Lam la nag mooy Lam. dégg lu mu la expliqué. ah oui ah ne sama wet boo xam ne ñoom dañoo gëm li ñuy def ba pare dañoo dëgg quoi. Mm-hmm. comme mu la expliqué. waaw mu ngi mel ni seen seen bi rek. Camembert dem si yàlla ñu koy ziar ñoom ay Zizi booy ñoom Zizi ñoom ñëpp ñoom Aliou Diabaté ay booy. Bamba Bamba ay ñoom Bamba. Ah. ay ay bu ne ay Bamba mos xam. Ah, bismi yaa dégg ay bismi. ñu commencé la famille waaye non yow tamit. Ah. xam nga Aliou la boo jaaxal. lu tàgg rek moroom ma lay fekk. oui mais Aliou man maa jooy jooy ba amatumay rek. <laughs> parce que booy dañuy daw di ñëw ci man di ma ñëw seet <laughs> mais man li ma bëgg. amagu ma ko naa am ngeen di espace. boo xam ni. mais tamit troupe jëmbe yi fi nekk. Mm. ah. Mm. yaa ngi door booy dóor fii. Mm. ah dem nañ ba dóor suñu ay jëmbe parce que ñu ngi jëm mag. Mm-hmm. xam nga lu ma expliqué. waaw ñooñu war a jàppale. man aar moomu ñor. Mm-hmm. leen lu nekkul aar ñoruma. loolu ñor la comme man aar moomu ñor. Mm-hmm. affaire bi buñ ko dama ne Thiès aar bi tant que teguñu ko sama loxo du def. du ma ko xëccoo. du ma ko xëccoo tant que ko du def. man naa nekk man naa nekk koo xam ne conseil lay doon ci aar bi rek mu def. conseil parce que aw ma temps wu nekk di lijjanti leen macha allah di la di la di la di la kontaane bu baax. Ah, vraiment émission bi jeex na. mu ah, nekkoon émission bu neex ah. vraiment. kontaan naa trop. Eh, merci beaucoup Aliou comme d'habitude heure boo fi ñëwee rek. wala heure bu ñu seetee. dañuy yëg lu ñu yëgul woon. di gis ñu ñu gisul woon di dégg ñu déggul woon. fii gis nañ fi ay tubaab gis nañ fi. aussi tamit kii yooyu waaw waaw non kii sama exposition temps bee ñu xoj temps bee ñu xoj xam naa ne deuxième ah, partie bi ah, maa ngi nuyu sama jabar Racky Diop. ak ak ay ay ak sama jabar doom Aziz Faye Wali fay sama grand frère. Ah, nga fàllu kii Mbaye Xadim ah, ah, Mbaye te moom a ceebal ceeb bu weex. Mhm. fàllu mhm. sama doom. jàmbaar lañ sama doom jàmbar lañ may jàppale. waaw xale yi dañ may jàppale macha allah zéro faute. waaw man su ma neexee damay jël sama pilaar rek ma lal ne le dem dem tëdd may nelaw. waaw macha allah man samay doom ñu ngi may jàppale. man tamit dama leen di jàppale. dama leen di jàppale ñu may jàppale. sama jabar di ma jàppale ma koy jàppale. Ah. le mécanicien qui est très doué aussi. non Fallou la non Fallou la mooy defar moto yu mag yi. mooy defar moto yu mag yi mais mais nag Bira Aw bul fàtte ni moom artiste la aussi tamit le réalisateur Bira Aw. ah Bira non non jaar nañ galerie non jaar nañ galerie joué nañ fay affaire. jaaraat ci galerie bi. waaye ñoom laay jooy. waaw artiste bu ma soxla bëgg a def dara rek ñëwal ci R100 nga fekk ma foofu Jean Faye laajteel Jean Faye soo ñëwee laaju ma dara dama lay jàppale ca jeex na kon noonu la fa demee man lu may def leen rek dama naan teg naa ko ci loxo euh, bira rek mu nuyul ma waa kër gi ñu daal koy tëjee noonu jaaree foofu noonu rek ziar merkine bas bamba xewal macha allah ziar naa kullukum ah di leen wax rek kanam <laughs> bu leen bouger bu leen daw mhm. gàncax gi dafay am ak sëñ bas incha allah à partir de kii lay faj te doo ah. bouger sa kër doo ah. bouger sa néeg ah. te boo yoree juróom faju boo yoree fukki juróom faju boo yoree cent franc faju waay bilaay eh, ay ca merci beaucoup eh, seigne Bass nak war nga maa faj ban genre faj <laughs> yow bëgg nga faj en direct né na nga faj ko faj ko merci jaajëf just tell me what you know fi lay teranga doomu aadama liggéey doomu moo ko mën na joxe ah mbokki yi daanaa dégg kat ñu nan njaabu gëleem Adultif ci Lolo loloy waxi intercontinental de négoce ku ko njëkk Moki, yeewu Moki, nga découvrir gaaw notre incroyable sélection de livres fournitures scolaires Fiche intercontinental de négoce que ci marché central Thiès Moki, 32 pages 75 francs dong la 50 pages 100 francs dong la 100 pages 150 francs CFA cahier 200 pages ñu lo 300 francs ah Y'a une d'élèves yi lii remise exceptionnelle peux pour matériel scolaire ak sac de qualité kenn dootul jéggaani ñu ni fay remise jusqu'à 25 tous les livres scolaires Kendo intercontinental de négoce chers étudiants nous fêter la rentrée scolaire universitaire Kailen participe, participé. participer ci la bu une exceptionnelle moto flambant neuf Avec une lot de consolation yu am solo Moki. Nous, innovation bu ci at mi gaaw en ligne ngeen profité ci service ñu daal di la koy livrer rapidement à domicile mbokk yi manqué opportunité bi bu leen ko dara jalal yëg si gaaw fii ci librairie papeterie intercontinentale de négoce ngeen man ñu 33 951 52 70 bu dee ci whatsapp 76 801 92 06 yéen ñi livraison à domicile Hotel gaaw ci 76 228 90 67 nous préparer nous commande ci anam bu livrez le co rapidement Bâtissez domicile intercontinental de négoce la solution simple et rapide pour une rentrée réussie intercontinental de négoce les plus bas prix intercontinental de négoce Yalla Nafia. mesdames et messieurs waa Thiès ak li wër marché mu santé bu Thiès kii mooy borom rythme yi borom portable baax yi talibé Serigne Sidi Niang Sidi Nder talibé Serigne Touba bu mag bàggee noonu ah kenn du ko présenter. Mo len di andil ay portable yu mucc ayib last cri portable de dernière génération da ngay connecté wu 5 jours sur 7 night and day da ngay nek au top Sidi Nder nekk ci marché mu santé bu Thiès Sidi Nder Ahmed Dieng Khalitam Kolkrezi, nek ak mom ci marché mu santé bu Thiès képp numéro 77 913 88 83 Voilà 76 351 27 54 wala 76 231 82 98 di cylinder, jot Ahmed Cylindre, un portable Redmi 12 128 Go RAM 8 Redmi 13 250 giga RAM 12 Redmi 12 128 Go RAM 6 Redmi 12 250 Go RAM 8 Redmi Note 13 250 giga RAM 12 Redmi Note 11 128 giga RAM 6 Samsung A14 64 giga RAM 6 Samsung A14 64 giga RAM 4 Samsung A15 128 giga RAM 6 Samsung A24 128 giga RAM 6, Samsung A52 128 Go RAM 8 cylindre andi portable de marque Huawei yu amul fenn fudul plasam bi nek fi ci marché mu santé bu Thiès cylindre ànd ak Ahmed Dieng ku ñu portable baxul. am Huawei D40 Infinix Hot 40i Oppo last Cry iPhone Pro Max iPhone 10 Pro Max iPhone 15 iPhone 12 iPhone 13 Pro Max iPhone 11 iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro iPhone 12 exemple iPhone XR X Max R xeewaa Thiès lu ñuy fang kenn du ko jeex ak seen xawla kii mooy Sidi Ndayer ànd ak doomu ndayem Ahmed Diagne seen place mu ngi nekk marché mu sante bu Thiès soo jógee ci mairie bi daf lay féete à droite jarul laajte ndax lu ñuy fang kenn du ko jeex diggal ma sampal ah kooku nag mooy Sidi waaw taalibe maam borom Touba bagi noonu yaa ngi jàkkaarloog vitrine bi nga xamante ni ay portable las lay jaay jarul laajte yow mi bëgg ñëw fii ci place am place Sidi ci station accès ci maquette bi cylindère. da fay à gauche vitrine baa vitrine bu mag 24 heures sur 24 matin et soir kooku nak moy Sidi Nder mam borom Touba ànd ak doomu ndayem Kol crazy Ahmed Dieng taalibe Serigne Sidi di buntam ci yoonu mam borom Touba wa ties ak li ko wër ñëw leen set ci Sidi ak Ahmed Dieng nga woti ci numéro 76 231 82 98 wala 77 913 88 83 wala 76 351 27 54 ci mim réew autre dootu l'homme au grand un cœur de diamant DJ Bisby musique FM karbalik nee na si loola ne avec plusieurs personnes impliquées. Et là, pareil, le bilan est très lourd. On parle déjà de plusieurs morts. Le djihad en Afghanistan, c'est un de ces événements qui a sans doute transformé le visage de l'islam mondial et transformé aussi la mentalité des musulmans. Il y a un mythe qui se construit qui est un peu similaire au mythe de Che Guevara. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته الأجمعين ومن اختفى بآثارهم إلى يوم الدين إخوتي في الله والإيمان نحييكم جميعا بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله mbokk julli ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di soppeem seydina muhammad ak waa këram ak i ak mboolem ku topp seeni jeexital ba ilaa yamina haza fa tabaarakallahu ñu ngi leen bu baax ci bis bu tedd bi mu yowmal jumaa al mubaarak di bis boo xam ni bis bu yàlla fonk la waaye bis bu yonent salaa salaam fonk la nga xam daan ci wax daan su ñëwee day leen bëri ngeen julli ci man kon ñi ngeen ci ziaru bax di leen ci ndokkel di leen ci ñaanal yalla yalla yàlla nangu julli juma yek sàbbaa yek qur'an yek yep rek jey sanam sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu suñu mbokk kilifa diine yep di leen ziaru bu baax di leen ñaanal yalla yalla yalla subhanahu wa taala del seen fan ba yan bi nga xamé ni seen mami ak seen baye seen magi baye fi mu nekk bu reuy bu am solo yàlla yàlla subhaanahu wa taala kàttanal leen ba ñu mën ko àggale ak jàmm tabaarakallah wa ñëpp di gis seen bopp macha allah ñu ngi nuyu mbooleem koo xam te yaa ngi toog sa saal wala foo mën a nekk jàkkaarloog seen télé bii di xéewal TV di télé bi nga xam ne nii mooy jaamu bànneex askan wi tabaarakallahu ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk ko ba ñu dee ko fa sore sore sore te ku toog di seetaan yàlla nga jariñu ndax it ay njariñ rek. na fi gonge ko waaye tabaarakallah di nuy sunu mbokk yi nga xamee ni bu ngeen ñuy gis muy leer ñoom la tabaarakallah di nuyu bira di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla ci taxawaay ak coone yi waaye ak liggéey bu rafet yàlla na yàlla subhanahu wa yokk ko ba yëg ni yokku na waaye nuyu pap mi nekk fële ci rési ba allah waaye nekk jiital ci nuyoo nag sunu directeur tabaarakallah te mooy ñu bas xewal ak docteur Ali jabaté ñu ñaanal yalla subhanahu wa taala yalla yalla sàmm leen te leen ba li ñu bëgg ci kër gi yalla yalla subhanahu wa taala defal leen ko tabarakallah ak mbolem ku ne ci kër gi yépp rek ñu leen ñuy leen ziar bu baax su ko defé ñu del ci waat ci émission bu mag bi nga xamni mom ñu tuddi atum mag ñi nga xamni émission la bo xamni seen bokku daara muhammad jité mo la kay omatal ajuma bu jot ñaw ñëw yeen di waxtaane yéen ci ay thèmes yu wuute ndax suñu jotaay bee passé ñu doon waxtaan ci wàllu jikko waaye tey tabaarakallah ñu war a waxtaan ci benn phénomène boo xam dafa xew jamono te ñu ñëpp ñu koy ñaawlu muy rey bakken yi nga xam ne ñu koy faat ay bakken mu nekk loo xam ni tiital na ñëpp